salaamaaleykum ami internet Dakar live ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte te su ne di leen indil lépp luy xibaar fii ci Dakar live di baatu xol bi euh, nouvelle bu métti nag moo dal li nga xam ne mooy askanu senegal waaye rawatina monde football euh, ki nga xam ne mooy Pape Bouba Diop nekkoon ab joueur international de football nekk doomu Sénégal moom nag dafa génn àdduna tey ci dimanche gi ginnaaw ab feebar bu yàgg bu ko tëraloon ñu ñu mujj xam ne ne Pape Bouba Diop naa dem wuyu ji boromam euh, Pape Bouba Diop nekkoon bu mag a mag ñu ràññee ko ci football rawatina coupe du monde bi nga xam ne Sénégal moom la njëkk a dem foofee ca Japon moom moo nekk premier sénégalais bi njëkkoon a dugal moo ñoom génération El Hadj Diouf Fadiga moom nag Pape Bouba Diop mujj naa uy ji borobam tey ci dimanche bi ginnaaw ab feebar bu ko tëraloon lu yàgg-yàgg ah, di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana waaye di ko jaale ay mbokkam di ko jaale ay di ko jaale monde football waaye di képp koo xam ne rek ab soppe woon mu nekkoon lu méttee métti loo xam ne ah, dal na si li nga xam ne mu nekk askanu footballu Sénégal ah, par ma voix l'équipe de Dakar live ñu na ko yàlla na ko yàlla xare àjjana firdawsi dee doon Noflaay moom moom nga xam ne moo nekkoon ab légende bu mag a mag di Pape Bouba Diop nekkoon ab joueur Sénégal bu mag a mag ñu ràññee woon ko ci football ràññee woon ko ci li nga xam ne mooy sport yàlla na ko yàlla xare àjjana fi daw si jërë ngeen jëf